soxna Awa Fall miy wax si kàddu mbooleem Madiyana 1 ba 7 soxna Awa bisimilah. salaamaaleykum mbooloo mi bisimilahi rahmaani rahim euh, ñu ngi leen di jégalu yéen ñëpp ci toogaay bi yàgg bi di leen jaajëfal ci wuy bi nga xamante ni moom ngeen wuy si ànd taxaw Madiyana am na lu nga xamante ni lu bëri du ma si delluwaat sëñ baal président président bi ñëw na si ba mu yaatu ak euh, sëñ Ibrahima Gueye dongo bi nga xamante ni moo doon def journée de lancement bi. ñëw na ci lu bari kon dañuy tambalé suñuy kàddu rek ñaanal sëriñ Touba sëriñ Mountakha Mbacké mu yagg fi te wër ñukoy tek ci loxo sëñ Bass Mboul suñu xarit suñu soppé di ñaanal sëriñ Touba sëñ Cheikh Ahmadou Mbacké suñu yaaka tay ak ëlëk yalla yagal ko fi te tamu wër lool lool lool ñu tek ko ci loxo sëñ Cheikh Abdou Lahad Mbacké taam bu baax bi ak sëñ Moukala ñu andal di nuyu ba tey sëñ Abo mi nga xamantene moy chef de village bi ci ko teg si loxo sëñ Salou Sey di ñëw di nuyu timit képp kuy jigéen kilifa jigéen ñëpp teg ko ci loxo soxna maam say Mbacke bi nga xamante ni ibnu sëñ Cheikh say Mbacke kon ñu ngi nuyu autorités yi nga xamante ni ñoom ñoo fi teew yëpp maanaam autorité religieuse yëpp ñu ngi leen di nuyu autorité administrative yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi nuyu autorité politique yëpp autorité politique yi tamit bu ñu ci sikkee sëñ àll si la mel na ni wax nañ ñëpp kon ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax tey nag ñu ngi ñëw wax si kaddu jigéen ñi nga xam ne mooy kaddu Madiyana jigéenu Mariana te présidente bi nekk soxna Fatou Ngom toog baax yaatu jël kàddoom jox ma ko dénk ma ko man mii kon kon présidente yi ñuy tàmbalee ci présidente Mariana 1 muy soxna Coro 6 ma nga nee toog ana soxna Coro mi ngi nii di jiite Mariana 1 ana soxna Awa Fall mooy wax moo jiite Mariana 2 soxna Ndey Matin Ndoye moo jiite Mariana 3 mi ngi na le soxna May Fall moo jiite Mariana 4 mi ngi ne toog ak mbooloom soxna Fatou Ngom moo jiite Mariana 5 mi ngi ni toog ba tey moom mooy suñu kilifa soxna Fatou Bey moo jiite Mariana 6 ak mbooloom kon ñu soxna non soxna Fatou Bey ñëw na waaye kon ñu wax ni ñun dañoo jàpp ne ñun jigéenu Mariana tey ànd taxaw Mariana bu dafa sosu dañoo jàpp ne ñun suñuy kilifa dañoo wuy su jo suñuy jooytu kenn ku ne xamna nit mariana dañ ko tuddee mar Marnayaana yana googu tay ji lolu suñu kilifa dégg jog sos gi ba tay ji ñi wax tay ji ndox mi yana mariana alhamdullilah kon tay ji ñun lolu ñun lañ ko sosal biñ ko sosé ndax ñun timit and nañ ko ak ñom ndax kenn ku nekk gis nga ni jigeen ñi ñu kenn wu kon xam nga ni ñun wal si nañu wuy si nañu kon ñi ngi ñaan ni nga xamanteni wam la an taxaw Madiyaana def ci Madiyaana si ndox mi mu def ko ci maliyaana zéro déchet manam maliyaana na set wetch ndax ñun kat alxames yu nekk ñi ngi balé maliyaana ko fi dugg di nga xamni ne set na mais problème bi nga xamantene mom lañu am moy problème mu génné malin bi bir maliyaana yobbu ko fenen fo xamantene du ñëwaat ci ñun kon nak loolu ñi ci interpréter autorité yi nga xamantene ñom mën nañu safara saafara loolu muy le préfet maire ak société humaine IGG ñu japp ci mbalit moomu ba nga xamante ne dina sori biir Madiyana ñi ngi ko na wax ba tey ci biir sécurité kenn ku ne xam nga ne jigéen da ngay soxla sécurité ñi ñu ñaan yàlla ñu ñaan waa ànd taxaw Madiyana bu ñu jógee si déchet bii si set seet Madiyana ñu jóg si sécurité bi ndax kenn ku ne xam na ne sécurité fekkee amoo sécurité sax xel du daal ba sunu mbaa ci kat niñ ko baaxee neexuñ ñun waa jigéenu Madiyana bu ñu jógee si loolu bu ñu jógee ci loolu ñu dem tamit ci biir wér gu yaram kenn ku ne xam nga ni jigéen moom bu njabootam wéree borom këram wér doom wér rek mi ngi ci jàmm bu ko boolee ndox boole ko sax ak set mi ngi ci jàmm kon nag lépp li nga xamante ne mooy wàllu wér gu yaram ci biir Madiyana ñu taxawul ñu ko ba mu mucc ayib ñu ngi ciy profité di nuyu suñu ICP yi nga xamante ne ñoom ñoo fi toogal wàllu santé muy sëñ Lamine jaay ak sañu ak ak docteur Faye kon nag ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di reen woo yéen jigéen ñi ndax kenn ku ne xam ne kuréel gi bu ku ne xam na ne kuréel gu bu doxee jigéen ñi noo tax bu ñu xooloon bilan financier bi nga xamante ni moom lañ fi def bu ñu xooloon li fi jigéen ñi def gëm naa ne ñun ñooy man ci kaw kon ñu ngi leen di soññi si ñu ngi leen di soññi si carte yooyu bu kuy mbootaay kuy comité de salubrité maanaam ku yore groupe set setal yore mbootaay yore loo mën a yore carte yi mi ngi fii boo demee sa présidente yi ñu lim dina la jox ab carte blocu carte nga mën ko di ko jaay sa mbootaay dina la jox ay carte membre nga man di ko jaay sa mbootaay am na ay carte yoo xamante pour social bi la social ko ko dégg mooy dimbalante carte ñaar fukk la carte deux cent la bu sa doole jotewul si cinq cent mën ngay joxe si loolu di barkeelu kon nag ñu ngi ciy woo ñëpp ndax loolu kat moo doxal liggéey bi loolu rek moo mën a doxal liggéey bi kon yéen jigéen ñi ñu leen di woo ci cotisation yi na ko ñëpp matale nañ ko booleeg li nga xamante ni moom la ñuy teggi lii nag natt boo xamante ne la kenn du ko teggi waaye sëñ moo lay fay kon nag ñu ngi leen ciy woo yéen ñëpp ñi ngi leen di jaajëfal ndax ku kàddu yi gudd ñi ngi nuyu nak bu baax madame mbake mi nga xamanteni mo fi togal jigeen ñi SEDAF ndax kenn ku ne xamna ni mom moy jàppale jigeen ñi ta jàppale ni jigeen ni mariana mais nak man na gëna yaat ndax jigeen ni mariana 1 ba 6 ñom ñëpp ñi ngi ni tok bon nak ñi ngi lay wo ci loolu gis nañu and bi nga xamanteni yaang koy and ak ñun te ndax ku wax jigeen wax na développement ndax développement suñu ay objectif ci la bok ndax ñun dañoo samp kureel ñun jigeen ñi 1 ba 6 pour lépp loo xamante ni mën na suñu koom-koom te loolu ñu ngi koy mën a jaar ñu mel ni kuréel yu mel ni SEDAF ñi nga xamante ni kuréel yi jigéen ñi la fi toogal di leen di former leen ay métier ba ñu mën a am seen i métiers bopp financé leen ay xaalis ba ñu mën di liggéeye xaalis kon loolu ñu ngi leen si woo madame Mbacke ñi ngi jaajëfal ñëpp di jaajëfal mbooloom yëpp tey jégalu ci kàddu yu guddi yi jërë ngeen jëf macha allah merci soxna Awa sa musóor baax na ah soxna Fatou jërëjëf jërëjëf soxna Awa macha allah. soxna Fatou Ngom nee na suba la cinq bi mboolem Anta Hamadiyaan yëpp këram la daje soxna Fatou Ngom la cinq bi jigéen ñi organisé Madiyana cinq ñoo ko ayee la cinq Madiyana cinq kon war naa neex kon duñ lu dul profité ak waxtu bi mel na ni parole si def bëriwul Serigne Aliou Sylla responsable politique bu mag teew na fi Serigne Cheikh Jigal commerçant marché teew na fi général Maïssa Niang teew na fi am ndimbalam daara dara li Madiyana bii. teew nañ Koso Cissé euh, ndimbalam yëg si na si kuréel bi yëg si na Serigne Abdou Lahad Sohaibou ndimbalam yëg si na Mouhamadou Lamine Touré moom it ndimbalam yëg si na Massa Mbaare Serigne Djiba Baye Ba jiite ko seen ndimbal yëg si na Sahaadatul Mouridina ñoom it ndimbal yëg si na Soxna Anta Wade ndimbalam yëg na ànd taxawu Madiana seen si na Mbaye si la soxna Gassama Gassama mbootaayam yësi na mat yàlla sa kanam seen ndimbal yësi na maam bu sa mbay mat yàlla si seen ndimbal yësi na soxna Ndeye Seck seen ndimbal yësi na am liggéey commerçant marché Ocass ndimbalam yësi na Serigne Cheikh Gueye ndimbalam yësi na Serigne Mor Alhaji Fadilou Cissé ndimbalam yësi na Serigne Lamine Ndiaye poste de santé première garage moom teew na si jotaay bi soxna mu ma ñaaw moom it مسندو مومن مسندو سيدي حمزه مومن دبلوم يسير سيدي شاكي مدام ترام دبلوم يسير سيدي باي جاكي مومن دبلوم يسير سيدي امي لوجوب دبلوم يسير ويسير سيدي انا تاهو مريم لكم جدا وحدي جهنا سيدي مام سيدي كابدين سيدي غوريا لانا لينا جاف انتي جنتي انا وين افنتي نبو يبقى انا سيدي مروم سيدي مام سيدي مام سيدي مام سيدي Serigne Makhtar Serigne Abdoulaye Fall pharmacien docteur Arahman Mahit ndimbalam yegsi na na Alla dafa guddi waaye la oto fee bu la neexee nga xool nit mu xool la ngeen ko nuyu ma sama yaay ki woote fii ci Mariana war naa mën a nekk soxna maam Sey moom Serigne Cheikh Say moom Serigne Soabu lu góor ñi ni bu subaa def ko nga fanaanoo ko def ko ci guddi gi koo ne maa la man nag jër ta wax koo def lu mu mënul xam ne yaa ko man soxna maam Say bi jaay ji jàng ci daara yi si kër maam rek laa jàng soxna maam Say def ci bët yàlla président Macky Sall laa soo message pour mu gis sa dara dara ëpp na ci état bi waaye nag fii di la doyloo sa pincu maam bii di bëri yàlla un ba six seex bu mu dellu buur diine fëri soxebu sa maam kooku baal Cheikh Abdoulaye ak Cheikh Saliou Fati ak Marème ak Aïssat Amadou Sow seen baay ma nga nendu foo dëkk moo ko moom masata bi tëddëm Amadou Kala Ndiaye Babou Diagne Ndiaye Assane Koum Sane Gueye yéeni tàkko jaam ak mi tàkko jaam ak Lamine Yoro Moussa Barman Amaka Ba Soose Ba Serigne Seer Soxna Sey Serigne Soyebu Soxna Ndey Serigne la boo ko def simuloo la ak Fatou oo baax la ak Dëkk oo baax la oo baax la ku ma ñëw man de xaw ma ko may ko jéggulu sëriñ man soxna man say nii toog day suñu kilifa ah te laa fa taxaw seen di xëy di isni ndigal rek lañ si am mënuñ see wax la neen kon ñu maa si déglu soxna man say auzu billaahi min waa mbooloo bi ñu ngi leen nuyu lu bari di leen sant di leen gërëm dem mbégte mu baax nag ci mbooloo mi nga xam ne tey ji ne mbooloo mu tënku la yu gëm sañ Touba yu yaakaar sañ Touba yu taxaw fa seen defar kàttab sëñ Soy Mbàkke bii ndax damay dooli tuuti ci eh, li sëñ Saliou Mbacke wax maa leen nuyu lu bari ak sëñ Motula yéen sama doom seen baay rek laa yaakaar di ko jël teg wax sëñ Abdou Lahad Mbacke mi taaw sëñ Cheikh ak sëñ Abo mi sawta kàtt bi ndax ma di yaana li sëñ Sall wax di wax naa bi ko sëñ Soy bi ko sëñ Abdou Lahad di jox sëñ Soy bu waaye magam ju baax ja dana ko xoolal foo soxla rek ci Touba ma daggal fu la fu la doy nga yemale ko fa ndax boobu xamoon ne suñu sang jaamu yàlla rek moo ko tax a jóg ak jàngale ak jàngale alxuraan mu dagg université bii boobu xamuñu ñun ba xam ne fi def université bu toll nii ci Afrique déet suñu ko jox suñu sang mu def fa daal alxuraan bi jàngal alxuraan ak xam kon man jàpp naa ne Madiyaana làqu na ci fu yàqu kenn mënut ko yàqati ndax boobaa léegi mën na cinquante ans yaakaar naa booba si war nañu ba Abdou Diouf ñew wala di ñew bi Macky Sall président Macky Sall bi nek tay jii kenn musa sa gestu Madiyana kenn musa seddelé séddale ba tudd Madiyana kenn musa wax ba tudd Madiyana ta li manqué nak bari na waaye surtout suñu change mi ngi fi dox ba ñi fi dëkk señ ba ngi suturaal ba jang ya ñu fenn dara poste santé amu fi bi fi señ bu nekkal mo fi ban baye ba légui ta li yeen jaar ci Touba amu ben bu dugg du assainissement du courant du lenn ci kon nag loolu dañ koy seere ñi nga xam ne nii ñoo ko yor ndax xañ na nag président moom xamut fii ci Touba xamut Daaru Xudoos xamut Madiyaana waaye ñi ngànk dëkk bi xam ñoo wax ak président ñu war a gëstu Madiyaana ñu wax ko nag tey ndax wax dafa jot ndax Madiyaana kenn ku ne xam na ne lu gën ci Touba rek muy université bii mi ngi Madiyaana population bi nekk Touba boo wax da génne Madiyaana gis di bari kon nag war noo jàppale Madiyana bu baax ndax li ko njëkk ci kàtt yi Tuubaa bari wut de te xool te xool jëmm ji nga xam ne moo ko am ni suñu ndax kenn ku nekk boo jël ci daaraam sa doom jaar na fa sëbdaal bi jaar mu yar la yiir la jàngal alxuraan kon nag war na noo gëstu Madiyana bu baax di sant Serigne Cheikh Mbacke son bu baax di ko ñaanal ci barke yàlla may ko fan bu gudd lu bëgg ji mu yàlla naa di tuub bu baax nag ndax naa ngi woon di doxal seen rajo ma Serigne Mountakha yaa ngi fi yàgg te ndax bi taxawee taxawu Madiyana ñoom Balla Gaye ñoom ñu dan faa dem mu yëkkati xaalis jox leen sant leen gërëm leen encouragé leen ci liggéey bi ñu jóge bi sëñ Sidi Abdou Lahad Mbacke yaakaar ñetti kër yi ndax ñëwat genn fi ñëwatu si daal fi ñëwatu ñoom ñëpp ñoo ànd takku def tey jii sëñ si tamit digal leen sant leen gërëm leen sëñ si yebal leen sëñ abibu sëñ Fall ca Touba ak an taxaw Touba Madiyana an taxaw ànd ah, Touba ca kanam sëñ abibu wax waa ji rafet jàpp ci moom it di sant njabootu suñu sang bi gépp ndax ñoom ñu kenn ko dama waxtaan ak ñoom ñoom ñu def ci seen xalaat ak seen alal def ci ndax seen carte baay bi moo leen ñor di sant nag euh, monsieur le maire Abdou Lahad Ka ndax maire bi am na loo xam ne àttanu ko ndax euh, am na loo xam état ko àttan lim ci man lépp mi ngi koy def ban fa demee recevoir nañu dikk na fii xool tiwa yi lim ci man def na ko yaakaar naa yu ne matériel ba mu solo sëñ Sidi Mbacke na ko wax. di sant bu baax préfet bu Mbàkke ci am ci département bi ban fa demee moom it yiir nañu waxtaan nañ ñun yebal fi sa préfet ndax ñoom kenn xam amuñ jot kon ñu ngi leen sant baax seen taxawaay waaye nag lu bëgg jàll suñu saas ñu waa Madiyana ñu jàppale baax Madiyana ndax dëkk bii ñu noo bàyyi seen dëkk maam ñëw dox si am yaakaar Sëñ Tuubaa ñu ne am lu Madiyana ku jàpp Madiyana ñu jàpp la ku xool Madiyana ñu xool la ku téye Madiyana ñu téye mbooloom yooyu tey jii du mbooloom politique mbooloom sëñ Touba ma taxaw taxaw te jàppale ma bi yaana la kon nag ñun ñu doon ànd ci taalibe yi doon taalibe sëñ Touba bi gën a ndaw ci taalibe yi ànd ak ñoom taxawu leen waaye nag Madiyana ko ko jàpp jàppale ko téye ñu téye la koo wan ginnaaw tamit ñoon la ginnaaw ñoom ñu Madiyana ñi nga xam ne ñoom la président di wax tamit nag nan jël su Madiyana ndax xorom lu xam ci nu mu xat-xat-xat ñu ba wax jëf xorom di sant ñëpp di sant euh, kilifa yi fi teew si Moutala Mbacke ak sëñ Saliou di sant bàyyi ma kenn di sant soxna madame Mbacke mi ak soxna Ayda Gaye di leen sant bu baax seen taxawaay rafet na Balla ñu ngi leen sant bu baax leen gërëm ndax lii ñun ngeen doon fekk ñu ñun ñoo ci woon juddu ngeen fekk ñu ci waaye nag yéen juddu fekk leen ci sëñ Touba mi tax ngeen def ak suñu laat ak suñu sang ba suñu na na seen kanam maa ngi seen ginnaaw lépp lu ngeen nekk naa ko ànd ak yéen amul Seex Mbàkke amul Seex Mbàkke mooy sama yaakaar tey ëllëg moom laa gëm ndax jikkoom ak taxawaayam noppeem ak liggéeyam ndax lim de ci màggal gi rek ci covid 19 bi war na aw yoon yëkkati xaalis joxe jox fi ay tuwaay ndox jox fi ay otoy ndox mbëggum Madiyana mar mbëggum Madiyana tumuranke kon nag Mbàkke gàcce nga laam yàlla na àgg tam bukki genn dox ci bàkk seew Xaadim kontaan nañ baax jërëjëf jëf ku dëkk ba jërëjëf ah soxna maam say Mbacke Balla xayrul kalaami maa xalla wa dalla bis bi bu la neexaan wax ba jeex ndax fii sa dëkku maama waaye nag xam nga ni jataay bi yàgg na te ñu bëree bëri si jigéen ñi ñoo war a joxe ci ay weer kon ñu ngi lay sant la gërëm kon mel na ni parole yi li si des bëriwul dañuy profité ak waxtu bi rek euh, bi yorewee assainissement ak environnement si mairie bu Touba moom la ñuy jox kàddu gi borom yi si des bëriwul Serigne Sidi Mbacké di conseil commune mairie bu Touba ak préfet ak sous préfet bu Touba ak Serigne Abdourahmane Mbacké bi nga xamante ni moo fi teewal Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Souhaïbou ñoom ñëpp kàddu yooyu rek moo fi des kon Serigne Alioune Badara Niang moom la jox kàddu gi di leen xamal information yi mooy Jant bi FM vingt heures incha allahu rabi Serigne Gora Ndiaye daanaan suñ paree Serigne Mourtala moom yaa yor presse bi yaa leen di sant. ku dëkk ma deyal ma fexeel ba am benn rosi ma deyal ma sunu gox moo sunu yitte. auzu a mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim mbokk yi ñu ngi naan asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa di tàmbalee santaat yàlla bu baax a baax ñu ngi ci yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam waaye santaat bu baax cheikh mouhamadul muntaxa moom cheikh moom bachir yàlla guddal fanam wérali cëram suuxat yéeneem ba lépp lu nga xam ne bëgg na koo liggéeyal maamam bi tedd yàlla defal ko tawféex te ñaanante ko may ñaanal tamit cheikh mamadou mbakke cheikh soybu yàlla guddal fanam wérali cëram ak njabootu cheikh soybu gépp yàlla sàmm leen sàmm njaboot bi suufat yéene ji ba lépp lu nga xam ne yéene nañu ko liggéeyal maam yi te da rawatina fii ci Touba ne yàlla defal ko tawféex ba lépp man koo motli te ñu àndante ko may yëkkati lu yooyu sell nag di ko ci loxo Cheikh di ko teg ci loxo Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ni moo ko fi teewal si ànd ak rakam yu tedd yi di Cheikh Mamadou Mountakha wànne di yëkkatiwaat nu yu tedd di ko teg ci loxo Serigne Saliou mi nga xam ni moo fi taxaw taxawaayu sëriñ Abo Madiana Sonhibou mi nga xam ni mooy chef de village yu Touba Madiana wande wëlbatiku nekkaat conseiller municipal bokk ak ñun commune ba te tey mu mel ni mënoon naa taxaw fii xëy na xat-xat la lépp luñ ci war a wax mu wax ko ndax bu boobaa dana taxawee ëttub maamam bii wande dana taxawee kër ba nga xam ne jox nañ ko ca commune ba wante xëy na xat-xat la kon dafa mel ni dañ koy wotti ko ci wàll woowu di ñaan sëriñ bi mu jottali ñu nuyoo bi bu jógee ca maire de la commune de Touba Mosquée jaar ci moom dem ci sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké Sonhibou di leen ñaanal rek yàlla dool taxawaay bi ma profité kon wax ni bi ñuy ñëw fii tey ñi ngi ànd ci délégation bu mag bu nga xam ni le maire de la commune de Touba Mosquée sëriñ Abdou Lahad moo ko fi yebal tànn nag ni ngeen ko waxee doomi Madiana muy conseiller municipal ma wéttali ko ci yoon wi muy Serigne Sidi moom Serigne Cheikhouna moom Serigne Abdou moom Cheikhul Khadim mel ne ci ëttub maamam ëttub baayam ci la ñëw jiite délégation bu jóge ca Serigne Abdou Lahad Ka mi nga xam ni sëriñ Sidi moom sëriñ Abdou Lahad moo ko jiital ca commune bee ñu nekk mu indi ay nuyoom indi ay cantam indi ay yóbbanteem dana ñëw léegi yëkkati kàddoom ci wàll woowu waaye man dama doon ubbi rek présenter délégation bi dana ñëw léegi moom mottali waaye bi ñu ñëw ni ko soxna Sayna waxe léegi ñoo ngi àndante ak l'adjoint au sous-préfet de Ndam Serigne Mouhamadou Samba Bousso nga xam ni bi mu fi ñëwee léegi matul un mois mu remplacé nattangoom bu fi nekkoon di Serigne Ibrahima Sall ñu yóbbu ko ca Makakuli Bantang ñoom ñu nekk ci keru le sous-préfet de Ndam di Serigne Babacar Ibra Mar yàlla dogal mu fekk ko ci congé wande soxna maam say ni mu ko waxee ñoom seenu taxawaay ma nga jóge ci le préfet du département de Ndam Serigne Makhtar Diop

tàmbalee ko ca ndigal ak ñaanu Serigne Cheikh Ahmadou mi nga xam ni mooy xalifa Touba Madiana ak njaboot gi yëpp wande fekk si ñan muy euh, association taxawu Madiana ànd taxawu Madiana te ñuy lancé tey lu am solo ci aspect yu bëree bëri wande ñu tànn ci lenn mu jëm ci wàllu environnement mu mel ni dañu ne moom la ñu tuddee Madiana zéro déchet té lolu yalla def tawféex fé ca commune de Touba Mosquée ma bok ci commission bobu nga xamni moy la commission de l'environnement du cadre de vie du développement participatif et de la planification bi Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma euh, di ministre conseiller auprès du président de la République guide ko mu melni mom tamit yobante bi and na ci ci lépp ci suufu Serigne Abdoul Ahad Ka wande ni ma len ko waxee won rek kaddu gi muy kaddu maire

ku ma ne loo fexeel euh, li may préciser moom la ma sama xaritu bopp bi di wax Ali kàddug le sous-préfet de di kàddug préfet di kàddug gouverneur loolu yëpp ni ma leen ko waxee euh, l'adjoint au préfet Serigne Mouhamadou Samba Bousso ni ma leen ko waxee bërki démb lay door a jël fonction mu mel ni passation de service bi yàggul waaye kàddoom yëpp daf ko jël delloo ko mairie mairie porteel ko ko porteel ko l'état du Sénégal parce que lépp benn démembrement rek la yaakaar naa ni loolu bu ñu ko aussi dana matale ñu jéggal ko di di ko ñaanal nag dalal ko c'est l'occasion ma wax leen ni c'est sa première sortie bi mu ñëwee fii léegi guléet baa ngi nii mu defe ko Touba Madiana kon sëñ bi ñaana ko bu baax a baax ñi ko ay moroomam defee Madiana la ko njëkk a defee barki démb la jël service kon nañu ko ñaanal bu baax a baax sëñ si bismillah jërëjëf sëriñ Alioune Badara Niang kaddu yi am na solo ni mu ko waxee dégg nañ ko mbokk yi may leen di déglu li wax di bareetuñ madame Mbacke di jiite sédance ñu ngi lay dellu di la ziara ndax yow yitte woon la si Madiyana xaritu maam say woon la si Madiyana waaw moo tax ma koy a xamal la ku mat la madame Mbacke mii moo jiite sédance na ko ñëpp xam mbokk may leen tuuti ñaari kàddu rek a des jataay bu toll nii ku si woo ay nit ñu wuy la wuy si mel nii. am na loo leen war a wax ndax am na foo jëkk bi Sidi moom Serigne Cheikhouna sa waajur wa Serigne Sidi min na tudde danoo dem ba Daaru Salaam bu Kibarga ak président ak Seydou Lalla bàyyi ñaxam fekk ko mu dalal ñu tegal ñu kool yi kenn mënul daa xam naa ñi sa tëggee den ñu sibi mais nag moo ñu mayu fit ndax Cheikh Mamadou Mountakha da koo jox dëkk bi soxey bu kër sëñ Saliou kër sëñ Blaat yaa leen fi nekkal monsieur le maire jël la teg la si wetam sëriñ Sidi Madiane 1 ba Madiane 6 sa dëkku maama mbedd mu la neex jaar assainissement environnement poste de santé benn fi am solution yi fii la ko bàyyi woon parce que cinquante wala quarante Serigne Sidi université de 37 milliards yoo xam ne am ñu def ko Madiana amul ndox Serigne Sidi amul benn tëri bu traversé ci Madiana amul Madiana un massif corniche ba kër Serigne Sidi moo tax benn tëri bu ko traversé amul Serigne Sidi population Madiana dañuy taalibe te am funte bu am kilifa waaye kon ñu génn dem si média yi di wax ni nit ñi wax Serigne Sidi Madiana xoolal ni mu leen demee sécurité soxla na ko mbaa ni mu koy waxee saa su 24 heures sur 24 Serigne Saliou wax na ko lenn lu ne ñu ko fi jaay mënuñu si dara civil mënta yar borom soxla nañ fi brigade police baax na mais brigade ñu gën a soxla nañ fi brigade Serigne Sidi Serigne Touba nee woon ne sibti ka sibti Rasulullah xay si bada moo tax sa waajur a tege day li ñuy bëgg suñuy kàddu na yegg saa boo ñëwee mbaare yoon yow sa yaram yi day daw gone yu góor yëpp fi la ñuy génn di liggéey université bu toll nii boo si génnoon Madiyana juróomi nit liggéeyul fa 37 milliards nekk suuf su Madiyana juróomi nit liggéeyul fa suñu bàyyi peel yëpp fii la ñuy taxaw suñu jigéen ñi root nañu yan yi pan ba amuñu karaw moo tax ñoom ñëpp ñu musóor sëriñ si ni Touba ñaar rek a fi am commerce ak dawali saret kon lu tol ni bu ko sumee ci dëkk bi sumb ko ma ma Madiyana war na see gis bop kon nak ñu ngi lay wax di lay jooytu di la xamal ni dañuy ay talibé ñu yar waye dat ñu xel Mbàkke bala xam nga li gën ci ñun da ko sama am di waxal defal lu lu la wax ak lu la waxul lepp lu sa waxal man defal bismillah Thank you. seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokk yi ci tey bi leen doon di siyaare di leen jox seen wàccuwaay di siyaare Cheikh Mouhamadou Mountakha Bassir di ko ñaanal suñu borom bàyyi ko fi moom bu rakkee ñu ngi ko àndal yëpp daal ko ci si. saa buñ ko gisee xar kanam dañ gisoon ci maamam rek la ñu xool moom ñu koy ñaanal mu yàgg lool te yàgg taxaw waaj lool ñu ko ko booleem mboolem ba tey bi nekk ñu ko defee ci saar yi ak Serigne Mourtala ak Soxna Sey mi nga xam ne nootuñ ci moom seede di nuyu mbootaay gi ñuy wax Madiyana ca kanam ko suñ bàttale ci boppam ak mboolem ñu ko doon àndal ak ñoom suñu asset bi bi nga xamante ni si ñoom laa ci doon coordonné lu jiitu di santaat yàlla bu baax ndax ci ñaari yëpp lii su ma doon dox ci mbedd ba dégg ba sax damaa war a dagg sama yitte nëw ci jiitu ci di ci xëy di ci gont ndax mooy li ma wax bu dul dara man ci sama jëm bopp li ma sëriñ soxna bu defal rek luñ koy tudd di ko ci tudd war naa caa mën a joxe sama bakkan joxe ci sama bopp joxe ci sama temps joxe ci sama lépp rawatina nag fi mu jaaral ak sunu bàyyi yar ko yar bu amul fenn jàngal ko ba mu ne jar mu delloo ko si Abdou Lahad mu def ci moom ngërëm loolu yombul te moo ni mu ko ko defal la ko defal ak ñi mu ko bokkal Serigne Touba yëpp. bi mbooleem ñëpp di dox ci àdduna di dox kenn ko ne yaa ngi xool fooy liggéey la Serigne Touba moom dana dal la alxuraan ndax xam na ne moom rek la Serigne Touba bëggoon na dinaa ko defal ci jaamu yàlla yi suñ doon lim tey ci Touba gii mbooleem koo xamante ni sii ci ëttu daara yi li ëpp ci li fa mbokkal alxuraan surtout ci askan bi soo ko ci génnee la ci des aw laf lay doon kon loolu suñ borom nangul na ko xaj na nag mooy nga xam ne mooy kilifa fii boole boppam ci seen laxaat mi ko yoral boppam moo tax joñut ñoddiwut waaye amut lu ñu jéggaani te mënu koo amal boppam wala boog loxoom boppam boobu mënu koo jiitu waaye dafa jël kilifaam ne ko daan boole léppam muy benn nanguut a yëngal dara ndax kilifaam gu baax googee mu ko seqal sëriñ Sidi Abdou Lahad yàlla nañu ko yàlla bàyyi Madiyana ci kanam nag bu ma ciy wax xam naa ko waxtu bi gàtt na te nemmeet yi bari na xaj na sëñ àll ni mu waxee yaakaar rek tax mu waxee ma ko noonu waaye su ma ca mënee woon noonu du ma ñëw wala bala maa ñëw lépp dana daje du tee bis ba ngeen fi ñëwee nemmeet ma seeni aajo laaj ma samay xalaat yaakaar naa li ngeen ñu waxoon lépp suñ ci waa nañ ci li jëndiku na te ñu jàpp ne noonu lañ ci war a taxawee lépp lu ci dugg ci suñu noppit waras na cee dox di ca wax ba keroog muy saafara wala ñu xam ne tële nañ bu dee mbirum université bi nag damay mal placé pour wax parce que loolu mbirum privé la te man àndewuma ak nit ngir di ko defaral ginnaawam damaa ànd ak ab laat pour suñu kilifaanu boole la ko fa dugal moo ko fa dugal tey bu ñu ko woon tey lay yem gi maa ngi moom ci kon loolu sama yoon newu ci moom mooy xool ña muy jël ak fa muy jëlee compétence mag ak ña muy liggéeyal waaye li nga xam ne concerne na commune bi askan wi di ci jot te mu wóor ma ne lu war a yelloo fii la te mu am fa te mën a nekk lépp lu ci dugg sama loxo bu soobee suñ tubaab bu duggee sama nopp dinaa ci xëy di ci góor te loolu xam ngeen ci dara nit nag boo ko bëggee dimbali da nga koy wax dëgg adduna daa am fu mu toll mooy ñii ngeen di jëfe rek mooy yoon wi dëkk bii bi ko sëriñ bi fàkkee kenn fekk ku mu nefe di fi jaamu yàlla ba lépp ñëw mboolem njabootu suñ Tuubaa gi ngay gis bari na ñoo xam ne jukki wu wuñ gi dëkkoon nañ ci ay dëkk dañoo dem ba laaj ko ñu meebu ñëw noonu la murid yëpp meeboo ñëw bi ñu ñëwee nag adduna fi daje adduna nag yoo xam ne ñëpp kenn ku ci ne amutoo xalaat dafa aju ci kenn te kenn ku nekk bëggoo kenn mer faaw jafe-jafe yi bari dëkk bi bu doon xalaat rek koy doxal mën naa dox ci lu bari waaye dafa bari mbirum biir moo xam ne mënee su koo yaatal xañ na lenn li sañees na koo wax lenn li sañees na koo junn lenn li lu man a nekk la nag te kaw buñ ci doxee moo tax bi ñu xalaatee projet bi nga xamante ni si yaakaar naa ne commune bi mi ngi ko njëkk am ci ab tëli te loo xam ne man du ma waxe bakkan te it ma wax loo xam ne yàllaa tax ma di ko wax wala bu leen neex ginnaaw kenn li ma lay wax lu ne ci këyit lay doon lu ne ci ay projet lay doon loo xam ne boo ko gëstoo gis ko te wóor na ma ne dana am ndax tollu ma noonu ci Madiyana noo xam ne dama fi wax loo xam ne bu subaa ma mën fee ñëwaatum tudd wala ma neen xew am fi ma ñëw fi daami jafe-jafe dara àddina jëralu ma ko ndax dama fee bokk dama fee bokk bari fi njaboot lool macha allah yàlla na yàlla xeeb dool bi yàlla dogalee ñu am projet boo xam ne tëli bi njëkk am mu mat juróom-ñaari kilomètre ànd ak ak i dañ ne duñ ko def fenn ndax Madiyana lañ koy def mu war a tàmbalee fii ci mbaar yi su ma juumulee yaakaar naa ne balaa janvier incha allah rabbi da ngeen gis ñu ko war a tàmbali mu ànd ak éclairage public dana dem ba dugg ci saam lu bari dana bari yëpp tër yu xotti lawaat ngir dem beeg dikk bi mën a yomb ci boor bii loolu ñu ngi ci bi ngeen ñëwee ne ma dañoo bëgg lu ñu dimbali ci mbali bi loo xam ne day yaatal ngir ngeen mën a am yi ngeen di jëfandikoo di jëli ci mbalit dama laa xalaatal ne la moo ne da ay sareet a nga fa te ngeen cee bind ba xam ba ngeen bindee suñ borom dogal na ma loole jox na ma bon bi na ma da nga yóbbandi ñeent jox leen ko ñu tàmbali lépp luñ ci soxlaat buñ ko bindee buñ ma ko waxee ma def ko bon baa nii ak àll ñag ma jox xam naa dana leen ko jotal bi ngeen ci boolee it éclairage public ci seen kanam ak soxna say mii la leen wax na leen man la leen booleel nan xool nam gënee

su ñëwee ñu def ci étude ñu xool ñu ko bëgg doxale ak ñaata ngeen tey am ñu wéyal loola moom ci boppam it àgg fa ne man fa xalaat ci lu baax wala lu ñuy jëf ko jaw ci ko ne na naal yoo xam loolu mbirum boppam la ci mbiri biiram lu ma ci man dinaa ko wax mu def ko ba ngeen gën gis seen nekkuma fi ngir dox seen ak ngir lan bëgg lu ko neex déedéet su ma cay dox dama cay dox ngir ngeen am li ngeen bëgg ndax man fii laa bokk lépp lu ngeen fii li jëm ci wala ngeen koy dox wala muy lu jëm ci loo xam ne wóor na ma ne sama loxo man na caa dugg man dinaa ko ci dugal te ma ca man dinaa ko def moom nag sañ na maa yebal fii ndax ñaari yëf képp nag muy sama waajuru ko jël def ko jëw li jiital di sama sëriñ boole maag moom ne ma ànd ko ko la ko suma ma gisee lu d'accord damay taxaw na aduna bépp d'accorduma su ma gisee lu baax it ni néew ko gàtt damay nangu na lii lu baax la kon su mu ñëwee ñu tudd ko Madiyaana mu wooma ba ma ñëw dama yaa nga fa soxna saye nga fa amatuma lu ma fay def amatuma fay dindi lépp lu ñu fa doxal jar kon sañ naa man ñëw fii taxaw fi ci ñaari yëf taxawal ko fi taxawaay bu ma fi war taxaw fi ngir jëm war fee mën a taxaw ma di leen xamal ne daal tàllal na leen loxo te xam na ne du mbirum ñu jàmbur ci moom nam leen ko waxee woon ca saal ba wax ko ci kanamu soxna say ne ko waxuma ne sëriñ siidi waaye sëriñ seex rek nit may yiire ne ma yaa dox lépp lu nar a jëm sa kaw sama kaw lay jaar jàppal na yaag sama doom yi laa yemale loole la jàpp te lay lay diglu kon amut lu mu ñor di wala lu mu fiy man nag damay lancé appel lii nga xamante ni sii dëkk dépp ko bopp na nit ñi yeewu te xam ne lii rek mooy dëgg nit ku ne da tal sa gox tal sa bopp nii Madiyana sa kanam def mooy dëgg Touba ca kanam dëgg la naam baax na mi ngi doxal waaye Touba gépp la bëgg a servir te laaj bu rëy bi li muy bari bari bari dafa mel ne fi mu feeñu ndax travaux yu bari te dëkk bee ñu toll kenn lu wérante wut na ay jàmbaar lañ te mën ngeen a xaar waaye waxtu woo muy ñëw it mën naa métti waaye nga ne ci mbir bañ fekk la ci dimbali lépp moo gën na dëkk bépp roy ci yéen te xam ne nit lu mu jéem man ko te nit ki dëkkuwaayam ak environnement moo ko war a defaral boppam ba lu ko cay fekk fekk ko ci yaakaar fi indi nit ñi yaakaar joojee du mën a tas mukk nit la ko Seex Abdul Ahad waxee woon waaye nañu fexe ba bu ñëwee ñun tamit nañ jotal jotal gi mooy bay ci sa wewu tànk kenn ku ci nekk la nga man ci liggéey ci sab gox nga def ko su ko defee lu commune bay doon lu muy néew ko bari ak leneen mbootaay gu ngeen di dégg mu mën leen a amal njariñ man su ma amee lu may wax foofu laay wax insécurité bi ngeen di wax man dama cee yàgg a wax xañ na jafe na tuuti ma di ci euh, ma man ci lu bari ndax am na ci loolu yaakaar naa ne ci ku mel ne préfet bi ci lay gën a gaawe waaye li nga xamante ni sii man personnel ci sama loxo liggéey naa ko ci te defuma ko ngir Madiyana kese te dama cee gis lu ma naqari te ma xam ne war naa mën a jëf jeex ci dëkk bi ma di ci bay sama waar ba wóor na ma ne fi mu toll nii mi ngi en cours te dana sotti mboolem li nga xam ne jàppoon nañ ne actuellement nii moo gën a indi jafe-jafe ci mbaar yi muy sareet yeeg borom sareet yeeg yi ñu leen di jiiñ programme bi ñu jël ci ñoom bu noppee ndax defaral nañu ay matriculation yoo xamante ni si bu paree sareet yëpp koy am dañ leen di suñ noppee identification lay am bépp seret bi def na ko sud noonu dañ koy mën a fekk fa mu mën a dëkk xam ne diw mi moo ko def pareetuñu benn gone goo majeur amoo fukki at ak juróom-ñett ñu di la joxob seret nga di ko lang-langee ci dëkk bi loolu la neex def loolu day dakk ñu ngi ci étude bi ñu ngi ci programme bi balaa yàgg dara dinañ ci woote réunion préfet dana woo commandant gendarmerie danañ woo commissaire ñu bind arrêté yi joxe ko distribuer matriculation yi su boobaa nag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 nañ gindi askan wi ñu dem jàngi man damaa mënta comprendre pourquoi pas ñun ñii ci biir salle kenn ku ci nekk ba da boo li ma juróomi nit am na fi ñoo xam ne seeni doom dañ leen di fayal inscription ba mbàkkee ñuy jàngi tubaab di jàngi tubaab di jël ay risque di dugg ci mbàkki tubaab yee ko ñëw tañ na dëkk bii école bu nasaraat waru fee mën a am te am na loolu ñàkk xam ak ñàkk a jàng doo nga ñu ko yóbbi ndax bari na gone yoo xam ne tey jii buñ amoon fuñ leen dugal ñu jàngi lii leen di dal leen dal kon loolu dañ du jot a xalaat la te bàyyi ci xel ndax bu buñ ko bàjjalee ci dëkk bi ñu koy jéggaani di ko wuti te jéggaani yi gën a bon ndax dafa gën a métti lii si xam na ci dara Touba Belel boo fa demee seem ba ña fay jóge fii Touba di fa jàng ji moo ëpp la fa dëkk soo demee Kéré Ndaw noonu at mu jot nga dégg ñu ne benn oto xalangu naa ci élève wala ñuy lang ci mbàkk Touba yi nga jiit leen ñoom sa yaram day daw te nit ñi war a dañu réer man damaa gis ne dëkk bi dafa jaadu ñu def ci ay jàngalekaay yoo xam ne day en méngoog ndàngam nasaraan la sëriñ ba waxoon te njaaree bañ ko indilee école tubaab ba ñu ne ko delloo ko mu ne du ko delloo fii laa koy bàyyi ci sama wet ñuy jàngale ñoom man may yàpp te loolu mën naa am ci dëkk bii kon loolu lu ñu ta bàyyi xel la ñu ngi sant ñëpp di baalu àq ñëpp di baalu ñaar àq ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa soxna ma ne may nu tuuti sëyëb laat rek kay daal di ñaan jataay bi jeex na sëyëb di laat ndax dañoo amal yéene Serigne Cheikh say heure bii mu ñëw nett ñaanal borom ne sa toole ab taawam Serigne Abdou Lahad ànd ak rakkam Serigne Mourtala fekk Serigne Sall mi magam yabal Serigne Abo Serigne Abdou Lahad moom moo war a def waaye Serigne Sidi nii li mu wax mënee su koo bañ a delloo cant li muy e avertir li mu si samaan Sëriñ Tuubaa dañuy jaahil du atte jaahil du yorum réew wala parlement jaahil ku xamul dara nee na du atte du yorum réew kon lan na ni kuy jëmoo ko dépasse am juróomi élève a paasal ñuy dem Mbàkke di jàng seen si seen i fourniture rek mënuñu koo jël kon li nga wax barke xam nañ ko bu baax a baax a baax beneen bi si dolliku sëriñ sëriñ sant nañ yàlla sant la li ñaanu Serigne Touba gi amin ji dalee sa kaw muy wajalu yaa rabbi ahaba maskani fii àddina latta wala maay sami muy tëddi Madiyaana fekk la nga toog Serigne Touba Abdoul Ahad nga conseillé sëriñ si nga ñëpp koo dugal si noppi waa Madiyaana Mbàkke yàlla la cat seexul ci barkeb Serigne Touba sëriñ si bi li nga wax si sareet yi dégg na ko ndax maa la ni dawali sareet ak jaay la la marché occas la nam nee na kenn ku ne xam nga ni mbaa mu ni takk sept heures ci suba ba vingt deux heures Touba gi dong am loolu du yoon xale bu taw si war a jàng mu naan prend nga teg ko si sareet mu naan maa yor suñu kër waaye kooku bu doonee mag fu mu jëm daw lu sareet bu ko gone defee bu màggatee fu mu jëm kon li sëriñ ay cuub te neen bu ginaar gi leen om leen ko waajuri parents yi nan gone yi ñu dem jàngi am xam-xam ndax xale yi ñooy doon mag yi lii dalal suñuy maam dal suñuy baay bañ sama classe ji dell si mbaar yi buñ tàmbalee foo terrasse du àgg buñ tàmbalee mbir du àgg ñàkk jàng doo ko ñu ko teg saa buñ génnee fii mbàkk ji suñuy morom ñoo ñu organisé te loolu war koo bañ sëriñ bi li nga wax dégg ko sant nañ la gërëm nañ la ñu ngi ñaan ci barke Sëriñ Tuubaa li sa waajur war def li wax ko sa yaakaar yàlla bu mu tas ci barke Sëriñ Tuubaa kon daal di jox Serigne Mourtada Gueye mu daal di wax ak waa bi ñi fi teew ñëpp jàllale su ko defee ñu jox sëñ Laat mu daal di ñaanal mbooloo mi Serigne Moussa Faye bu ko kenn fàtte di jàmbaar si ak taxaw ma di yàlla a jagat yi soxna Jéegéey di bàjjenu si ñu ñuy toog mënta dox sax waaye pousse pousse daanaka la jël ñëw fii soxna Jéegéey mii bàyyi ko ma diyaane si ak délégation bu am solo.

barke borom Touba bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñi nga am di sant mboolem ñi nga xam ni ñu ngi teew ci jotaay bi day mel ni ñun duñu guddal ndax li fi mat a wax lépp ñi fi jiitu wax nañ ko kon damay beral ak cant euh, mairie mbootaay Madiyana 1 ba 6 balaa may ñëw ci presse bi mairie mbootaay yi Madiyana yi kilifa yi ñoom ma sant ni naa leen beral ak cant ci taxawaay bi ñu am ci ànd taxaw Madiyana bu ngeen xoolee baas bi daanaka bi 17 di jot fii soxna yi nekk fees na dell loolu li mu tekki mooy ñoom soxna yi ñooy ànd taxawu Madiyana euh, mu mel ni nag jotaay bi am na solo presse bi teew nañ ci macha allah ci niñ leen ko yëgale woon bokk na ci ñi fi teew Bawol Média teew na fi Leerlu TV teew na fi SN Xibaar teew na fi Mbedd FM teew na TV teew na fi Murit Info teew na fi Sam TV teew na fi Xidma TV teew na fi Benno FM teew na fi Waar TV teew na fi mooy def direct ci YouTube bi actuellement Mawaahibu TV teew na fi ICAP FM teew na fi Lamp Fall FM teew na fi 24 Actu wala Actu 24 teew na fi Dakar ak teew na fi Sunu Info teew na fi Istikhama TV teew na fi Jant bi FM teew na fi Source A teew na fi waaye tam TH TV télé bi xew teew na fi di am mbégte nag bu wér ci. liggéey bi ni mu demee ak teewaay yi ni mu amee duma tëj sama kàddu mukk te waxuma ni Serigne Touba moo sàkku bind ci Matlabul Fawzayni li mu soxla ci dëkk bi kon Touba mel ni Madinatu Munawwar loolu ala kulli halin day am ndax dafa nur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba léppam di sëñ ba léppam di yonent bi kon lu am Makka dana am Touba lu am madinatu munawwar dana am Touba kon lolu suñu xel war na ci dal waye bu serigne sooy bu ne defe na ni Touba bu ci kanamee ben quartier do ko jitu kon sëñ na ma wax ni serigne sooy bu ànd taxawu Madiyana la doon junj lolu nak yomb naa gëm ndax waxna ba tàyyi ni ben ndox mu neex mi Touba di naan Madiyana la nek mi ngi fi ci forage Maou Rahmati ci jóg ci. universel bi sëñ Tuubaa ne wàccalu ban maskana taallumi wa mawdihal fikrati wa tafahumi ñaan boromam mu defal ko ay centre yoo xam ni dañuy jàngale waaye jàngale mu xóot mu yaatu loolu yàlla dogal na muy université 37 milliards sëñ Tuubaa Madiyana la ko leen kon Madiyana buñ ne dana jiitu ci quartier yi ñun loolu lañ bëgg ñun an taxaw Madiyana mu gën a set gën a naat gën a leer Pour ëpp sécurité pour ndox gën a féex ëpp yoon gën assainissement Madiyana gën lañ bëgg te Cheikh moo ne lu ngeen yóotu jot ci lu ngeen téye du rëcc te lu ngeen song ko daan ndax maa ngi koy ànd ak yéen jërë jëf ñu ngi sant bu baax di organisation bi nañ environnement nañ ci torop président ak bureau bi ñëpp a def benn say ngir ñu mën def lii kon ñoo ngi di wax alaykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu sun madi madiyaan na sunu gox moy sunu yitte lolou moy sunu bàkk noonu madiyaan na sunu gox moy sunu yitte nako gono yi di wayantoo da ngeen jëf sunu gox mooy sunu yitte jërëjëf as TV Cheikh Mouhamadou Mour Mourtada Gueye mel na ni sa mbokk télé si seen xol sedd na tey boo leen yiwee rek dana gën a mel na ni kon duñ def lu dul daal di jox Serigne Mourtada moom Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké di conseiller ànd taxaw Madiyana di membre fondateur ànd taxaw Madiyana yore relation ak ànd taxaw Madiyana si kilifa yi moom la ñuy jox kàddu gi su paree sëñ daal doore ñaan kon mbooloo mi ñu may ñu tuuti sëñ Mourtada jël kàddu su paree rek ñu daal di jox Serigne Abdoulaye mu daal di ñaanal mbooloo di sant mbooleem média yi fi teew yëpp ak mbooleem communicateurs yi fi teew ñëpp Serigne Gora Ndiaye Ndaaraan Serigne Madoune Fall Serigne Mokhtar Oumy Mboup ñoom ñëpp sant nañ leen di leen gërëm tey xam ne nag yàlla rek la naan waaw xubbul watan nag min al iman mboolem sone si Madiyana ñu ngi leen di woo si ndigalul Serigne Cheikh si ndigalul Cheikh Mamadou Mountakha mboolem bi xool leen Madiyana ni mu toll a xale yu góor yi fi nekk kon am na lu des kuréel boo dema séance Madiana ñu ngi leen di woo kenn ku ne Madiana gën a dëkk bu dee Madiana un la président baa nga fa ak présidente ba lu waay gàtt gàtt am xam-xam bu dee jigéen a war ngaa mën a dem bindu bu dee góor a war ngaa mën a dem bindu tàmbalee ko Madiana un ba Madiana six mbooloo bi ñu ngi leen di ñaan ngir jëmi Serigne Touba ñu ko sëñ si di waxe lii kenn ku ne war na ko dama ni ñun ñi nga xam ne ñooy ne si biir koñ bi di xam li si xew ñooy mën a organiser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 julli ci yonte bi Muhammad rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam yeesal suñu taalibe ak suñu njëbbal ak suñu yaakaar ci Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul di ñaanal suñu Muntaxa suñu borom yàggal ko fu la téwél ko ak njabootu Sëriñ Tuubaa gépp te ñaanal suñu bunt ci Sëriñ Tuubaa Sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Sango ak magam yu tedd yi Cheikh Sidi Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad ak mboolem njabootu Sëriñ Tuubaa gépp suñu borom yàggal leen fi téwél barke Sal Xadim di yëkk ci ay kàddu ak i cant ak i ngërëm di di di ci jiital sëñ xalifa suñu di di di di jëriñ sëñ ci Abdou Mbacke Soxna bi nga xam ne moom moom laa topp ci ginnaawam mi moom sëñ jeex yónni ko fi mu sëriñ Abdou Lahad moom la sëriñ jeex yabal ko fi mu war a ñëw mu war a yëkkati kàddu sëriñ Cheikh joxe ay jant nga di turam man nag mu jox ma ndigal ni rek xam naa ne ay kàddu moo gën a mat samay kàddu ah tey li fi euh, li fi li fi suñu mbokk yi jiitu di sama rak mu sëriñ Cheikh na Abdou Lahad ak euh, suñu mbokk yi fi jur yëpp wax li wax wax am na solo lool te kenn mënut a wax lu ko ëpp macha allah xanaa euh, sëñ sëñ bi ma jox ndigal rek waaye man sama kàddu amul solo te xam naa ne ay kàddam bu dikkee mooy gën ah, maa ngi gën a sonn ñëpp rek di sëñ sëñ Balla maa ngi lay sant bu baax a baax sa taxawaay ak sa posté bi ah, ngeen am yéen waa taxawu Madiyana yëpp macha allah di la gën a soññ te xam ne ab gox moom kenn ku ne yaa ko mën a defal sa bopp kenn wut see kenn kenn wut seexaar kenn kenn wut see état kenn wut see xaar kenn moom la wax waaye kenn wu ko si xaar da nga war a dëkk nekk sa nekk si état fekk la si ndax euh, nii ko nii Touba def rek dafa dafa wane yoon dëkk bépp noonu war a def euh, euh, kenn ku nekk sa gox ba nga nekk nga nekk si bu état di ko fekk la si ñoo ngi nuyu préfet préfet koy nuyu di nuyu su préfet di nuyu action préfet yi bu baax a baax macha allah yi am na solo lool macha te di ko jox cër bi xam ne la ko suñu borom jox di ko yóbbu yóbbante rek jafe-jafe yi fi dégg ñëpp wax nañ ko mu jàll ko si président de la di am euh, mel ni mbett tamit boo xam ci am naa ko mbett tuuti ndax jàppoon naa ne ndaje mu toll nii bu ñu ko defee député yi nga xam ne ñoo nekk assemblée nationale représenté Touba di war a fekkee jafe-jafe yi waa Madiyana di ñaxtu war ko yóbbu ci assemblée nationale te jamono ji ñu woyotu bis yi bis bis si at mi waroon noo ñëw fekkee bi xam jafe-jafe yi jëm si assemblée nationale ministre bu toog bu waxee ñu wax lu jox na ko jafe-jafe yi waaye benn député jaaru fi seetlu naa ko jotee jataay bi député yëpp juróom-ñaari te yu tubaa ñetti député ngi di ñëpp ci opposition ñaar député nek nek nek appoir kenn teewul sa tànk sa tànkam na nga xam ba élection bu fi kenn jaar di wax beli kàddu bu fi kenn jaar bu soxlaa di di nihnya nit ñi te bu nit ñi amee jafe-jafe du ci taxaw dañ ci wa rahmatullahi wa barakatuh